salaam fa demba ma jaama jaama jaama jaam way na baay maram salaam fa demba ma jaama ma jaama ma tegoo ma tegaaram ngay sandeeri jengeen doo Fatick xamulaay ma sandeer bu nga ndoo ndangaan

Euh, voilà top c'est parti pour la euh, quatrième course du programme réservé au groupe 2 alors, 13 euh, important pour une distance de 2200 mètres à parcourir avec un excellent départ de Hatim. Hatim, le numéro 1, Nek en première position. Le numéro 10, nous le Mais d'abord, nous Marem Da monté par Sidi Saou. Maintenant, Momo Guéni Chikanam. Marem Da, nous en première position, deuxième position, euh, El Capo. Lauréat du Grand Prix du chef de l'État édition 2022, mais en deuxième, troisième position, Khatim Momo Fonek, nous maintenant en deuxième position. Madame Dame première position deuxième position euh, Khatim troisième position El Capo Baraka 2 en quatrième position cinquième position Damel euh, Damel Amarigone Sabel en cinquième position Damel euh, Déthié Foundiogou Momo moo fa par Ousmane qui dit jiital fas Mon et jamono vous écrivez devenu bu professeur Sahid Thiam. jamono Momo, moo Fassi, oui, qui a ki nga Momo ni qui a ci kanam Dame monté par Sidi Sow waaye gis ki El Capo qui a nga le Momo Khatim ñu nekk benn fas en deuxième position tamit Ameth Ngolo Sobel ñoo tim leen en quatrième position Iftar mu ngi ci biir groupe bi waaye nga xamanteni mom moy mooy mu ngi ci groupe bi Mambo King mu ngi ci biir groupe bi Elisio mu ngi ci groupe bi Jamono batay mom tay mu ngi ci groupe bi waye ki nga xamanteni mom moy mooy génn moom mooy Marème Da bonté bat nga xamanteni moy mooy Sidi Sow mu nekk doomu xabib bi xabib par éligibilité qualité mais El Capo ak nga xamanteni moy Khadim ñoo togon do li nga xamanteni mom moy mooy en deuxième position Golo cham ñi ni di am 1000 mètres mam ngañ mu ngi nonu fi leen waxé fas am nañu 1000 mètres seen première minute men nag sens na lool ñu ngi ko def temps une minute vingt six secondes waaye nga xam te ni nii moom moo génn moom mooy Marème Da El Capo ak xaatim ñi waral cool yi ñi ngi toog langandoo waaye dawal nañ la numéro 7 bi nga xamante ne mooy ñëw mooy Baraka 2 waaye nag fi mu toll nii bi nga xamante ne mooy euh, xaatim génn na moom moo nekk ci côté cor waaye ki nga xamante ne mooy El Capo euh, moom tamit ñëw na tourné lañ ñu tournaal professeur Sakhir Thiam yi fas tey a xaatim El Capo ànd nañu nekk benn fas xaatim El Capo xaatim El Capo El Capo génn na ko d'office El Capo génn xaatim d'office waaye en deuxième position ba xaatim moo fa ne waaye Momar li mu def tey xam naa dafa nar a teg stratégie pour teg ay bureau am nar a dawal si 200 mètres waaye dawal nañ nga xamante ne nii moom mooy Iftar bu Mor Diop Iftar ñëw na en troisième position. voilà maintenant Khadim qui mène le El Capo qui mène le peloton monté par El Capo tourné na ci tournalu xombal bi en deuxième position nag xaatim moom moo fa nekk troisième position Iftar doomu Tibetain la mais am attention Damari Amari Ngore Sobel moom moo nekk en quatrième position cinquième position Marème Da voilà attention alors attention El Capo de plus en plus fort na ci tournalu Golori Couture bi El Capo monté par Fallou Diop lii moo nar a nekk li xamante ne moom mooy ñetteelu réalisation voilà attention euh, ki nga xamante ni moom mooy ba El Capo de plus en plus fort en deuxième position Khadim troisième position Iftar quatrième position Damel Amady de Sobel El Capo ngi signe troisième réalisation sans faute ci li nga le moment parcours 2200 mètres deuxième Khadim troisième Iftar quatrième Damel Amady de Sobel cinquième nag nekk fas yi nga xamante ni le numéro 6 euh, di Awa Sayer Degan cinquième nekk numéro 6 de El Capo honor on honor ken li nga xamanteni troisième réalisation si saison bi waye tamit nga xamanteni moy ème Diop li cinquième réalisation 6ème saison bi El Capo lauréat du Grand Prix chef El Capo vainqueur Grand Prix Ministère des sports El Capo te mu préparé fas yi nga xamante ni mooy le stade liquide de l'écurie Lamba Fall waaye ki nga xamante ni moom mooy deuxième moom mooy xaatim xaatim nekk doomu Tibotin par Fabrice waaye Fabrice danseur waaye ki nga xamante ni moom mooy troisième mooy Iftar ne fas moom tam mu ngi daw progrès nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax waaye gis nga El Capo mu ngi nii waaw Fallou Diop moo ko war nga gis Mouhamed Mbaye moo ko téye noonu. El Capo si ngeen nga xam tamit toile de réalisation monté par Fallou Diop gis nga noonu ñu ngi koy interviewé nekk benn fas boo xamante ni depuis daaw ba jógewul ci di séduire li nga xamante ni moom mooy public du hippodrome tanu antam euh, hippodrome Ndiamacodou Diop ndax heure bu engagé nga gis bu daw buy daw tribune bi day di rek yooyu noonu yëpp El Capo mu ngi noonu si ngeen li nga xamante mooy troisième euh, réalisation si temps 3 minutes 04 a waa fay naa la. Fall ñu gis ne El Capo nga teel dëggal sa bopp. waaw tey rawante moo laaj loolu il faut ñu teel a dëggal suñu bopp waaw ndax soo déggee rawante bi yàggoon na te bari woon na wax ji bari woon na kon tey nii la doon mën a def rawante su logique ah raw première bu neex kenn du la critiquer. am nuyu naa la. maa lay fay Bokar. ah ma gis El Capo mu teel a boom daa liggéey bi daa constat ba léegi rek. waaw mais fi ñu nekkoon mooy démb ak bu barki démb ba léegi rek mooy foofu lañ nekk ñun liggéey moo ñu war quoi lépp lépp li nekk si may fas rek ñoo ngi ko siy def incha allah ñëw ñu rawuñ ñu ñëwaat. confirmé taw raw tawaat raw tey doon mooy confirmé parce que wàcc dafa bëri woon moo ko mën a mënu ko mais tey leer na nañ quoi waaw lan ngay lan ngay wax naar góor naanu góor yi li si kanam rawul suñu bët maa leen waajal lu metti lu metti